yaay kan yow. man maay Aida. Aida. sant wa. Kébé. ah <laughs> kër gi. ah waaye Aida sa jin bee gën a rafet. ah. <laughs> Eh? ah waaye xanaa yi xeeti jin yu bees yi la. ah ah. ah waaye xale dafay jële. Hmm. xale dafay bëgg boppam di sañse xam nga ñun ñun bàyyi kii xale yi. <laughs> maa jën bi neex na leen nii rek. waaw waaw waaw. yii yii day moom day baax. xam hmm. nga xale il faut nga bëri feeling ni ngeen koy waxee. Hmm. maa bëri feeling nga loolu. ah maa bëri feeling de. bul waxati loolu. ah. <laughs> eh wuy ma. Hmm? foo dëkk fii. maa ngi dëkk Pikine. Pikine. marché Zengam ginnaaw. Sabanel. Sabanel Sabanel. ah sabanel. Ah. neex na. neex na trop sax mais nooy dundee ñaareel yi. ah nooy dundee ñaareel en ce moment. ah ñaareel. Hmm. ah ñaareel neex na de. ñaareel day doom <laughs> ñaareel day ku ko amul war nga koo wute. Hmm. ñaareel rek surtout ñaareel bu joŋee. Hmm. ah su boo xuma awa boo xamul dara xam nga góor. bu la yàlla dimbalee ba njëkk laa takk da ngay mën sa boor. waaye boo mënul sa boor ba sa jëkkër wut keneen. yàqu nga. day ñaar laa am waaye crédit yi moom pare naa ci li ma ñam fii hmm? <laughs> awra ma la ko wax sax ndax gune ga <laughs> maa xam nga ni man su may am jëkkër ñaareel lay doon boo ko deful def lu bon bis boo nekkulee ñaareel eh. moo yàq nga ko yi eh, bind naa sama digg ñaari xatu jëkkëram moo may takk laa bëgg ah, dara nii dara maa ngi ni toog ah. Mhm. ah yow de <laughs> lu tax amoo dara ah, xam nga xale yu yi est-ce que gumbawuñ tamit bu xale góor yi bañee nga wut paa jantal yi. waaw ah. <laughs> wër sax. caw am na paa déedéet nag bàyyi <laughs> am na paa xam boo ca dalee. Mm. am na paa xam boo ca dalee. Mm. moor moo raw yàpp wu nooy seet ma rek. <laughs> ah. mais kañ nga fi ñëw sax. man nag ñëw naa fi ma xool defe naa ni démb xamu barka démb fàtte naa bi si sax. fàtte nga bi si. waaw boo nekkee kër neex na léegi yow ñaata fan nga toog. fii de xam naa ni daal bu yàlla defee jàmm. Euh. te yàlla bëgg ma rek. Hmm. gaw ma ma gaaw fee jóge mukk. waaw tamit nag <laughs> bakkan jàmm la bëgg. bakkan jàmm la bëgg xam nga nu ñuy defal hmm. foofu ngay dugg yëpp dafa xóot. li jënt suñu biir maa ak yow riche bëgg naa ko mel ni yow. koo ko toj. day <laughs> jël sama numéro. wéyal ma tàppee la. moo gën moo gën a gaaw moo gën a gaaw mm-hmm. ah waaye day nañ ko def yi fi mag rek te xam nga yéen nag am na gone yoo xam boo ca dalee. Mm-hmm. dañuy nettali ah. ah <laughs> xale ba mu suturalaan nag. t'inquiète même pas. Hmm. Mm-hmm. man nag xale li ma ca gën a neex xam nga mooy lana. bind nga ca tur. ah waaw. jeex na dinaa la la naa la woo de. est-ce que doo annulé suñu demee ñëw maa yow ñu ànd. nan bi. suñu demee doog annulé maa yow ñu ànd xanaa loolu neexu la. moo ne wax nga kaaj de. <laughs> xam nga comme départ naa ba noppi. Mhm. dama koy gët. weer laa waroon def. Mhm. dama koy def fukki fan. Uh-huh. ñaar fukki fan yi ma seet nu ma la gisee. Hmm. ñu dem ca. xam nga man li ma gën a neex ci xale moom nga yor. Hmm. xale balaa maa gëm ni xale bu kii nga nga tatuwaas. man boo tatouage bu ma lay xool damay xëm ndax man su baaxul lii. maa xam nga ni sama yaram bi yëpp ardoise dama ko tatouage yëpp. waxoo dëgg de. am na xam ne si biir bu ñu dajee maa bu ma dindi ko. Ah! Ah, waaw jële tatouage nga. yu garaaw laa la ah, xam ne instant yii mënoo ko gis parce que dama sol yére. waaw mësumee ko de. waaw hmm. waaw. yow daal dal nga ci koo xam ne kii. doo ko rëccu doo ko rëccu de xam nga ñaari jabar yi sax moom daanaka kii la rek prétexte la nii rek waaye man boo ma xoolee xam ni <laughs> soxla woo ay mère sax ah mooy yow con ci nekk nii rek provisoire ah, provisoire ah, ba la ñuy wax <laughs> provisoire <laughs> sama saar gi nga bëgg ah, waaw waaw kon neex na maa lay toppatoo yee na hmm. foo dëkk Pikine gi ko taa baa dëkkoon ak seen waa kër ak yooyu non dëkk maa suñu waa kër hmm. Hmm. noonu non baax. man mag moom muy ñëw de di ràcc. waaw waaw ràcc daxiñ bi. wuy ma maa ngay dem mosoo maa gis nag. mosoo maa gis mosuma laa gis. waaw dëxin bi nag bis bu koy togg naa mbaax nga xamante ni bu amee laxas yooyu boo lekkee ba suur boo jox ni nga ko yóbbaale. allo ma chérie. ci loo naa la yow. ah man de maa ci góoru Sénégal léegi yow yaa ngi nekk sa kër ñaareel yàq musiba boo xam ne ci sa aawa <laughs> mais de yaakaar naa aawa dina la jig aawa bu la jig est-ce que am ñaareel <laughs> loolu doyul sax may wax ñeneen da doxaan. <laughs> waaye def fii xam naa ni must fi naanee neex waa Sénégal ñun jigéen ñi war nañoo nangu lii ba kañ yor seeni jabar di doxaan bu ñu nekkee seen kër aawa yàq seen ñaareel bu ñu nekkee seen kër ñaare yàq seen aawa mais lii ba kañ tamit maa am bii kaa bi ma la war a tegal kaaw kaa bu rëy boo xam ne xaju sa biir senegaal déedéet kay. <laughs> li ma fekk ci kër gi. <laughs> maa lay wax li yow. maa ñëw fekk fi per ci biir néegu Ngoone Njaay. Hmm? xam nga def. Hmm. <laughs> ñuy fo mel ay xale ndaw. sama xol bu daloon doon bineega ba damay romb sang may wax Ngoone Mbaay daal man lay wàññi faalew ma ko. <laughs> bàyyi ma tegale deuxième bi ci des xam nga mooy lan <coughs> ba ma perte fekkee si biir salle bi laa la wax. Mm-hmm. tagg ba mu fi tagg ñaareel yi. déggal li déedéet kay. <laughs> xam nga góor rek yaa ma gën a xam ma chérie jóge sa bopp. gis <laughs> man daal damaa bëgg nga jóg dem si maa mëni jóg sa bopp moo gën nga toog nii. jógal sa bopp laa wax dégloo ma xel li ma lay wax man am naa si lu leer nañu nu di te loo si xamul xam nga mooy lan. Mm-hmm. kii ma gis nii bu gisee kereen da ko si teg. Mm. te yow nag yaay perte. <laughs> yow daal boo yéexee ñàkk lu leer laa dox instant fi ñu toll nii yaa ngi cete ba bëgga dee dañ lay buux nga daanu ñu ñàkk la buux nga daanu. instant yi ci cat bi nga nekk. Arda dama ma gis nga man du ma koy ñàkk. Hmm. te gis ci jóg ak nu ki ma gis ni nee na weer lay def. loolu yaa ngi nalaw de. doo daa mel ni yeewoo goo de. <laughs> waa baax na man xaar maa ngi lay waat na xam ne dañ ñu déglu ma yaa ma gën a xam. balaa ñu may dégg. gérer ma wala yow mel ne yaa ngi fi na sa xol sedd man rek. jeex na jeex na. waaw wengeluwo sa xaalis mooy sama kàddu woo kon wengelu wengeluwo wengelu wengeluwo eh sa xarit waaw mais nga ni yaa nag lu fi dencal xam nga yaay sama xarit di sama doom lay bëgg ma ñu yàgg lool fa tubaarakaw loo bëgg tey ma def ko am naa xaalis téye naa ko yéene naa la ci dama laa bëgg a jox fanweeri junni tey wuy ma non bul génneegul calpe da nga yàkkamti nag. kaay ça va laa la koy joxe ça va bien. yaa ngi si jàmm. waaye sant nice. waa dara méttiwul la. mais sinon naka affaire yi. yaa ngi ci gàll. sinon. xoolal kon dinaa ko def deux cent. dix mille ma yore loon démb. sama xarit nga nag. baax démb yore loon naa. ma ne man maa lay jox fukki junni. man dama laa yore dama laa abaloon vingt mille am dix mille yaa ngi maa maa la delloo sa tigri saa jàppal jàppal deuxième gaaw jàppal merci bañ rek moo ko nar a lay bañ boo dee moom fi yëg suba dangaa xam fanweeri junni nga du ma sax kenn mënu ko neexal xale perte naa perte naa waay man feeñ naa feeñ naa waay metti na maa gis ku bëgg góor ni kii du ma sax jël lu góor trop loolu lekk. xaw ma jaaxal kay daal bu ma naanee meew nii la may meew bunt moo tax sawaruma ci. yaa ngi ko eh, yaa ngi sëy ah, du génn tey. ah bon dama ko quarantaine. mais wuyu euh, kii bi démb boobu dama ne woon bu ma xëyee naa la wax. lal bi pour en vigie dafa deseere. kii kii ju moo tax nelawuma insomnie laa fanaan total. da nga man du ma ko xale. xale bu yedd da nga seere lal bi laa wax ah ma taay dama nga xam nga rek taay daal fu mu toll nii boo bëggee dégg-dëgg kuy jig njaag maay njaag xale laa yor naa xaalis yaa njaag mel sama yaay ma doon woo ma ne maay ma luy jig njaag maay njaag. xale laa yor naa ko mën naa ko. bu baa jaayoo doro baa yamba. yow ah damaa gis ñu lay woo répondre loolu. li ma la wax maanaam xam nga tout fan si mooy commencé yokk bu may génn ci réew mi fi mu nii ku may escorté laa bëgg nii. mun nañu koy waxee ku may gardé parce que sinon damay dox nit ñi di xëm di daanu la daloon Alioune Mbaye Nder bu yàgg cent appels par jour. Euh, en fait noonu laa la ko mën a waxee ko parce que ñoo bokk dëkk ngaay euh, man beneen daam bi laa gën a xam quoi yaaw bi mu demee woon voyage maa ko indiloon bagage yi ah, waaw fait may sa ñoo bokk dëkk ngaay ah. depuis hier dama koy woo jot ko xaw ma ci lu mu nekk quoi moo tax dafa feebar nag ah ñoo ko yóbbu sax hôpital fa laay nii sax pour dem xool ko c'est grave ah. defe naa tey moom dina ci am lu leer parce que dafa jékki-jékki rek xam ko xamuñu bu ko daal. ah bon. Mhm. parce que depuis hier dama koy woo mënuma ko jot. moom loolu taal boobu. xamul ko daal yow fa nga jëm nii waaw fa laa jëm mën nañ fa ànd. bien sûr amul benn problème xaaral ma jël sama sacoche après ñu dem. ok toogal ko dugg ci wàllu waaw mais. man naka waar gee. merci gis gisee depuis boobu noonu ngay dugg si gàll bi. jour boobu. yee sinon maa la doon tooñ sax jour boobu. c'est comment. bay bay bay pàccax. ah bay pàccax. bay pàccax. yaa ko. yow lan nga ci kër gi. waaye boroom kër gi. yaay kilifa kër gi kon. waaye borom kër gi waaw. maa fi kilifa ci kër gi. ok loolu toujours da nga waaw mooy ah day sa gel dugg si. Ah, ah. Ah, non déglu ma waxtaan rek entre frère. yow ma kilifa. Hmm. non parce que boo ma doon kilifa may nii. Hmm. sa sœur nga koy jàppe sama sœur la. bu nekkoon sa sœur. <laughs> non déglu ma bu nekkoon sa sœur. keroog doo gis mu ànd ak nit dugg ci biir xamoo ki mu àndal kan la nga naan ay fat ay iri non dégg naa la. mais li ma gis laa wax. loolu du yëfu kilifa. mais loolu naa gis. mais li nga gis danga nga gis ñaari nit ñaari nit yu ànd di dem xamoo kii kan la yow bu nekkoon mat nga kilifa li ngay def mooy woo ma ba ma ñëw nga demal sa tànk ci kër gi laa wax n'est-ce non ça dépend rek parce que tamit moom bu fekkoon ne seen dugg na ci kër gi amul leen loo seq lu tax dugalu la ci saal yooyu yëpp nga nekkoon kilifa di ko xam. waaw sama tànk nekkul bi mooy premier fois ma koy teg ci kër gi. ñaata yoon nga ñëw ci kër gi. benn yoon boobu dafa ma si ñëw dama maa la ubbil. loolu nga yaakaar moo tax sa kilifteef dafa des. may sa mii jàppee ko comme sa sœur nga def yëfu kilifa beneen yoon li la dal nii bañ la dalaat dafa feebar xam nga lu ko dal. xamoo ko boo dëkkee ak jigéen dangay am seetlu ci moom te boo nekkoon kilifa di bàyyi xel di nga xam ne may semikat mii nekkul ci état bu normal loolu laa amoon lu ma lay wax mbay paccax man njaay la dégg boo ñëwee ci kër yow tamit nga ni da fi seet si jigéen boo ñëwee war nga koo laaj kan mooy kilifa kër gi bu nekkee dafa am yenn tànk yoo fi doxoo dafa am lenn loo fi lijjanti yow tamit da nga war a jéem a fexe waa kër gi mais di ñëw di yollee ko te déjà sa biir wax nee nga yow yàgg ngaa ñëw ci kër gi donc yow yàgg ñëw ci kër gi di dugg te laajte woo waa kër gi may sa kan la dëkk ci kër gi kan mooy kii kii kan moo fi di yow yooyu tamit yooyu yëpp ko yaa ngi xëy ñëw di dugg ci néegu may sa génn di dem sa yoon yow tamit da nga waroon lijjanti waa kër gi nga jéem a xamante waa kër gi même bu nekkee man kilifa laa def dafa génn waaw xamante ne yaa ani ngoone baay jëkkër ji ñëw takk ngoone baay maa ngi fi seen waaju tuuti jooju moo ma tijjal jour boobu sax tuuti ma fanaan fi kilifa day defee fu kilifa voilà waaye dégg naa la <coughs> mais sinon yaa ngi si jàmm sant yàlla bu baax di moytu rek. allo. waaw sa waay yow jërul nga fi nekk di cheral ay bagages envoyé nga ma bëgg naa moto bi comprendre nga voilà cent cinquante mille laa ci man bu fekkee d'accord nga léegi léegi xaalis baa ngi nii ak man ma bàyyi li may def lépp ñëw jox la avance trois cent mille. yaa ngi dégg nga monter yenn bagages yeeg yooyu d'ici demain ma ñëw jël su ma doon voilà c'est ça xam nga time is money bul gis benn affaire nga am client mu mu yor liquide bëgg la koo jox ngay ne fi di di di seeral ak yooyu ak fi réew mi toll ak confinement yi il faut bazarder américains yi lii lañ ñu voilà ok non confirmer loolu rek grand wuy ma mën naa ci teg vingt cinq mille bu fekkee c'est loolu mënuma ko paase ok d'accord donc kon maa ngi lay déglu dans quinze minutes rek boo ma defee signe tombeek nga semblé yenn bagage yi ok d'accord maa maa ngi lay maa ngi lay waaw ok Mika la plus belle comment vas-tu. ça va ngi cool. oui ça va. da ngay téye. ça la mën naa la dégg def. <laughs> day tooñ nañu si ginnaaw. ah Serigne Mbaye. <laughs> ni nga def jongo ma la la. moom ngay seet defe naa est-ce que nekkul ci biir néeg bi nii. asfaawu eh ak mais t'es habillé comme ça juste pour leurrer pour génn dem. ma doon sangu. c'est quoi ton problème toi. je t'appelle tu réponds pas sama problème réglé woo ko en plus de cela tu retires tous les jours écoute-moi écoute-moi tu retires tous les jours de l'argent mais tu abuses mhm. écoute-moi. J'en ai rien. J'en ai rien à serrer. Je suis là pour parler de. Mais attends, je parle nulle part. Je parle nulle. Laisse-moi. Je te parle. Je. la yow ngay def fii. dama ñëwoon pour explique lui. lay wax. waxtaanoon nañ ci noppi Mbaye je peux t'expliquer. en fait si suñu xuloo bi man ak yow. attends je t'explique suñu xuloo bi man ak yow. arrière arrière la li nga wax ak man tu recules et tu parles je t'écoute. ok sama xuloo bi man ak yow dafa ne ma mën na ma jàppale pour mu jubóole ma ak yow puisque yéen ñaar ay gaayam ngeen. waxuma la ko Mbaye c'est dañ waxu waxante wuñ ko fii ci biir salle ah mis à part ça ma jox ko sama carte GAB. mu ne ma dina retirer pour régler situation bi en plus daf la waroon jox xaalis. ma jox il t'a donné de l'argent. ma avance ko vingt mille mu ñëw delloowaat ma vingt mille. quoi vingt mille. yow nit ko bon nga yow laajuma la yow. tu n'as rien à. attends je t'explique non bu ma laal yow arriéral bul wax ak man da ngay reculer ma gérer ma Ibou taxawal reculer ma gérer li may gérer ak yow yow amatoo pour jël sa tànk di ko teg si biir kër gi. mais je pense bul ñëw ci man tu da ngay reculer nga wax ak man. laajuma la yow. seet ma ci da taxaw nga déglu Ibou yow bul tegati sa sa tànk si biir kër gi yow looy gérer ak Ibou Ndim ay sa carte jox sa xaalis loolu ça me regarde pas bugguma sa xaalis bu bul ñëw bul bul ñëw bul ñëw da ngay def bul ñëw. bul ñëw bàyyi bàyyi bu bu waxal ak ma laal bu ma pardon moi yow yow bàyyi baal ñu rek mbay. si il faut considérer la même c'est nous qui vont considérer. mais si Ibu bàyyi ma yow Ibu bàyyi ma waaye yow bàyyi ma ba pare. waaye yow bàyyi ma waaw yow ba pare waaw bàyyi ma yow. yow yow amoo benn jom yow yow nit ku bon nga yow xaalis moo tax ngay jënd suñu ngay jël yow laajuma la yow. yow eh, bu ma bu ma yow xam nga xaalis bi ngay jël eh, man yow bu ma laal man ak yow c'est fini entre nous deux. day génn kii na génn kër gi Ngor Mbaye kii day génn kër kii day génn kër. non defal naa defal naa defal naa non defal naa yow lan la. mbay lan la dafa am jëkkër am fat kii dafa am jëkkër ñëw di génn ak man. ba pare jaam bii moom di récupérer xaalisu kii ni ko daf may jubal ak moom di xool ko muy sa di lu ne mu dugg ci ndaka de chaque jour muy récupérer ay millions yu bëri ci compte lii que di ko lekk kii nekk jaam traître bu bon njaalookat bi nga doon yow yaa bon bu fi ñëw bu ma xool mais si papier rek nañ marié marié wuñu jàkkar waa léegi mariage la yow ko yow ak bëgguma lijjanti loolu mbay xoolal lijjanti ko en l'amiable ay waa ngir yàlla dama kaa bàyyi kii na génn kër balaa ma koo rey kii bu daganoon ma tër ko rend ko damay dugg ci paaka bi jël. dama lay da lay rey kii na génn kër da lay rey da lay rey da wuy ma wuy ma waaw wuy ma. je parle ngeen pas. il faut pleurer en même temps. day xam mbay wuy ma dañuy wax rek dañuy waxtaan. kii bu bu waaw non teel may déglu ma jigéen la liggéey lijjanti ko ci kanam lijjanti ko ci calme. alam yi am jëkkër nan laa koy lijjanti am jëkkër. waaw gérer rek da ngay dal rek gérer da nga xaru. laajuma la yow yow moom tu te tais wuy ma lii ko ngir yàlla rek rentre chez toi après je vais lijjanti ça laay. wuy ma dugal néeg mbay dugal néeg mbay léegi naa ci ci kër gi day génn kër gi. mbay bul dëgër boobu yow tamit nag eh. dama eh lii lépp man la mais juste que man ak sama jëkkër dañu nekk ci instance de divorce avec ça ça m'a coûté mbay bàyyi na ma gis ngeen ni ma dàkkee ci kër gi. Ibou Ndir moom di profité ci situation bi pour di lekk sama xaalis lii lépp fan laa koy waxee. ak naka laa mën a def léegi pour jubóog mbay. yow moom ba ma moytuwul. kii di kii nga war a rey nag. yow moom sama moytuwul. waaw baax yow barki yow boo yow boo ma ah, moytuwul dama yow laay rey. yow dama ma moytuwul kër yow laay rey yow. kii di fan yow indi kóor gi sama kóor la. yow suma. bu leen ma rey jëlee da bàyyi kii nga dem sa yoon bàyyi kii. yow ñàkk jom nga ñàkk jom ba nga ne da ngaa mën foofu noonu yow baax ci sëriñ Tuubaa Mbàkke boobu mooy tuub. waaw bi nii jar na ko. liggéey foofu. te seen turu triyaa kat bii waay dee ay waay dee naa muy sama ñoom euh, comme gars yi yéen a ko gisandoo ah vraiment tey am naa lu ma lu ma metti trop mais nag nangu naa ko quoi xam naa ni man maa juum te nit ku dul juum amul vraiment man sama diggante ak mbay bëgguma woon mu demee nii mais li ñuy wax rek ni xaalis fépp fu mu dugg lu nekk rek mën na fa créer yeneen bagage quoi parce que aussi lii ko daf ma bett